Céréaux International. Céréaux International. abonné leen ci suñu YouTube yi ngir su nekk yu wér te wóor ci réew mi ak ci bitim réew. waaw ñu ngi lay fay sëñ bi. naka la. man maa ngi tudd Bilal. Euh, Birane. Euh, uh-huh. dëkk Yoff APEX. Yoff APEX euh, ñu fekk la fii sa bërëbu liggéeyukaay. Birane élection législative yi xam nga ci la jóge mm-hmm. fi mu nekk nii sax ñu ngi xaarandi li nga xam ne moom mooy résultat yi. day mm-hmm. ji mm-hmm. commission nationale changement war ko publier d' abord nan nga gisee. élection yi ni mu doxee. waaw ginnaaw bi ñu rafetloo li fi jaar yëpp parce que politique Sénégal lépp dafa leer du dëgg. instant yi njur ñaaj mënatul am ci ci ci élect benn élection li ñuy wax rek mooy lépp lañ ko def ci ak tee ak dal ak di euh, déstabilité réew mi quoi en fait parce que jàmm ci la lépp xaj waaw parce que nit ñi dañoo yeewu waaw yeewu askan wi ñëw gën ñoo leeralal mbir mi ñu gën a yeewu teg ci ndax léegi politique bi jeunes yi dañ ko ci am fii ku deful li nga war a def dañ lay sanctionné bu baax ba ñëpp xam nga ba tax na waa kër Macky Sall dañ leen sanctionné bu ñu ëllëg élection yi nañ ko teg ci ci lu leer du dégg ndax mënatuñu am majorité assemblée. noo gisee xëccoo bi nga xam ne fi mu ne nii mu ngi am si ñaari principal kii yi coalition bi ak. daanaka xam nga ku nekk da ngay ràcc jëmale sa boor ràcc. Mm-hmm. mais nañ xool nañ xool arrangement bu Sénégal yi. parce que euh, APR am majorité assemblée day sonal Sénégalais parce que liñu bëgg xex ak ni bëgg dundé dundee duñ ko man kon boobu nañu respecter respecter Sénégalais yi xam nga jox leen seen cadeau wal leen fiñ euh, fiñ fiñ ñu ci réew mi en fait. waaw résultat yi ñu koy xaar euh, tey euh, ana tey euh, ban posture la nit ñi war a am ban doxalin ba tey bu feeñee it jàmm rek am. waaw nañ ko teg ci dal ñu génn résultat yi ci jàmm ak salaam ñuy gañe ñu génn ne ñi ñoo gañe bañ a ëldëb bañ a def dara ndax jàmm ci la lépp xaj du dëgg nañ ko teg ci lu leer bu dee yeewi moo gañe ñu jox ko parce que man yeewi la mhm. waaw ba tax na nañ ko teg ci lu leer. franchement jàmm ci la lépp xaj te Sénégal ñun dañoo baaxoo jàmm ñëpp doxi seeni activité xam nga ñu weesu la yeneen détail parce que dëkk bi dafa metti te day gën a metti ndax Sénégal dafa ndaw te politiciens ñoo téye lépp te nit ñi am nañ yeneen yeneen yeneen liggéey ya nga xamante ne ni war nañ ko mën a def kon du politique moo war a téye suñu moo war a bloqué suñu lépp waaw nañ teg lépp daal ci jàmm. Birame ñu ngi lay jàmm. ngay nangu suñu borom dogal. man nag si suis apolitique mais damay wax rek teg sama aqulaay taala donc noonu la dem ñoom nañ nangu. apolitique ah, mais am nga foo far am nga foo voté nga. voté naa. voté naa franchement voté naa waaw. mais du ñoom ñëpp kenn moo ci tooyal sama ceeb. du dëgg dëgg nag ci dëkk bi laa bokk moo dëgg rek laay wax bu ma dee sama maag sama bàmmeel la. te dëgg rek laay wax. kenn joxuma ci dërëm pour ma waxal la.

bu buñ ci defee nag su noonu ba xale yi génn fii ba am dara lu jot kenn ba léegi suñu borom seen kaw la koy àtte tam loo xam ne jekku rafetul ñu xam ne dañoo ami doom yi ñu ami doom te dëkk bi dee gi na ci affaire élection yi ñàkk fulla yi ñàkk fayda yi du dëgg ñoom ñi nga xam ñooy àtte nañu seet na suñu borom moo leen tiim te bu ëllëgee dañ leen di tëral ci jaar te juróom-ñaari maire pétal donc moo topp leneen dañuy fekk ba moo seen jëf kon nañ def lu rafet bu ñu indi ay problème ci dëkk bi parce que bu ñu indee problème problème bi mën na maa dal mën na laa dal mën na leen dal sax ñoom kon nañ seet nañ wàkkeelu si yàlla àtte dëgg yàlla tax bu ñu far fenn fii loo fi day jeex lu dul jeex bi su suuf suñu borom sàkk ko su dëgg suñu suuf yi sax day jeex parce que bu ñu suuf si lañ jëm donc na rafet rek wasalaam. Euh, man maa ngi tudd Fatou boo parle ñu mën a waxtaan ak yow rek ci élection yi d'abord dañ lay laaj organisation bi doo ko gisee. bon organisation bi sant yàlla sant yàlla. kontaan nañu trop ci lu mu gën a passé vraiment kontaan nañu. mais nag di ñaan yàlla suñu suñu candidat bi gagné mooy ñun moom. far nañu moom dañoo far ba ñëpp xam nañu far nañu waa jéeg askan la ñu àndal. waaw vraiment ñu ngi leen di ñaanal ñu gagné. gis nañ mu am benn xëccoo bu métti ci diggante Yewwi Askan Wi ak nga faral euh, ak Benno ana ban jàngat nga ci loolu. bon noonu la chaque compétition noonu lay demee ñun vraiment. ñun daal gis nañ ne xëccoo ñun daal am nañu yaakaar daal am nañu yaakaar. tey bésu tey bi euh, ci la ñuy xaarandi li nga xam ne moom mooy premier résultat yi commission nationale de recensement war koo publier ana tey ban posture la ñu war a am ñi nga euh, yi juges yi euh, leaders yi ban ban taxawaay la ñu a am. nañ ko teg yoon rek. mu jaar yoon. nañ ko teg mu jaaree mais que le meilleur gagne en bi Yewwi Askan Wi euh, la waaw kenn ñu ngi bëgg a waxtaan ak yow ci élection yi damay laaj d'abord rek organisation bi euh, nan nga ko gisee. waaw organisation man moom euh, li a wax parce que tey xoolee ak réew mi toll ak euh, di ko di ko def si élection euh, mënul ñàkk la. lu mënul ñàkk la mais mënoon ko def beneen méthode bu mooy bu mooy mais nit ñi mënuñu dee ak kii ba pare nga ñëw bëgg a jël ay milliards di ko def ci ay élection faaw. loo xamante ne dafay maanaam dafa am loo xamante ne priorité priorité mooy euh, li nga xamante ne moom la am ñoom ñu ñu dundee ak gàllankoor yi nekk ci loolu lañ war a duggoon ci balaa ñuy wax élection pratiquement tey même xale yu ndaw yi nga xam ne ne ñu toll réew mi moom ma déggee daal dafa mel ni da nga may wax ne Sénégal yi taluñu ay élection man moom sincèrement moom élection moom moom ñu njaboot geek euh, li ma ci mel noonu laa yi bëree morom laa xam nga tey ñooñu ñuy fal tey euh, ñoom ñooy doxal ñooy ñooy doxal ci mi ni mu war a doxal waaw non dañ dañ ñoom ñooy doxal parce que falaguñ leen moom ku ne xam na ni muy doxal ni muy doxee mooy fal leen ma fal leen ma fal leen ma ker bu ñu leen falee après ñoom ñoo lay romb jant seen oto après amatuñ ci yow soxla parce que amatuñ sa jot léegi nag ñi dafa am beneen level bu ñu nekk level bu ñu nekk mooy que ne dafa am leneen lu ñuy dund mooy dund bu cher bi ak paju mi ñun ci loolu lañu war a war lañ lañ lañ sukkandiku quoi ñu gis xëccoo bu métti ci euh, mën nañ ñaari principal euh, force yi Benno Bokk Yaakaar. Euh, Yewwi ana noo gisee. waaw non mais Benno moom day day day foqate rek. Benno moom day foqati quoi ci solo ni ñu koy ni ñu koy gisee ni gisee ak ni ñu déggee Benno moom wax dëgg yàlla moom na dem na bay na dem bay bay ko. xam ne moom wax dëgg yàlla bu ñu ko tegee ci cadre yoon dëgg dëgg dëgg. moo yeew yi tax gars ko ni mu ko rawee moom kenn wax bisu tey bi la ñuy xaar ñu ngi xaarandi ñi nga xam ne moom mooy euh, premier résultat officiel yi commission bi war ko war ko publier te ana ban posture ban taxawaay la sénégalais war a am euh, votant yi leaders yi juges yi non non xam nga xam nga xam nga xam nga parti ba tax na daanaka dañ naan dañ mu bëgg dina ko mën a am mais nit ñi ñoo war am fulla waaw mais population bi ñoo war a am fulla xam ne nag ñu fi woon li woon démb ci naxe dañ ko war a jël teg ko fële lii dëgg ñi jiite te war a àttin mbir mi ni mel ñu xam ne lii mooy dëgg ñu doxal ñu dëgg te xool seen diggante ak xool seen diggante nit ñi nga xamante ne ñoom seen ginnaaw te seen doole seen loxo te seen ginnaaw waaw jaajëf euh, madame euh, Ndoye euh, ñu bëgg waxtaan ak yow rek si élection législative yi bi mu tàmbalee ba léegi. Euh, d' abord euh, li nga xam ne mooy organisation bi noo ko gisee. waaw organisation bi moom wax dëgg yàlla euh, jaar na yoon. def nañ ko si jàmm mais fi mu nii daal li xaw a tey seen xel mooy. Mhm. li résultat yi génnul ba léegi. parce que dimanche ba léegi résultat yi waroon na mën a génn heure bi ku nekk xam fi nga féete. Mhm. waaw parce que majorité amuñu ndam. Euh, nu mu tudd sax waaye ñoom ñoo ñoo ñoo mais fi mu toll nii boo moytu problème dina am parce que ba léegi nangu ñoo génne résultat yi parce que dafa am fu ñu leen gagné. Hmm. waaw mais affirmé rek nga waaye yow ñoo gagné da nga affirmé non parce que ñu gisagum rek si résultat ñun loolu rek lañ si loolu rek lañ mën a sukkandiku parce que bu fekkente ne ñoom ñoo gagné itam gagné bi demeewul noonu franchement. Hmm. waaw parce que ñu ngi ñu ngi suivre résultat yi depuis boobu ba léegi xool fi niveau yi gën a liggéey bu dee diaspora bi ñoom. foofu yeewi ñoo leen man largement hmm. am na ay ay région yoo xaman ne tam benn benn bokk yaakaar ñoom ñoo gañe yeewi mais de demeewul noon daal hmm. kon nag affaire yi fi mu toll ni dafa xaw a dafa xaw a danse lañ bëgg daal moo ñu génne résultat yi si jàmm ku xam ku nekk xam fi nga féete loolu moo gën. Mm. ñun ñëpp loolu la ñuy ñu koy xaarandi tey euh, rivalité bi nga xam ne am na si diggante ñoom ñaar ñaari principal euh, force yi. ku nekk di yuuxu victoire ana tey noonu nga ko jàngate ni ma ko jàngatee rek mooy euh, le président Macky Sall moom moo war a xam ne rek askan wi fi toll nii wan ñu ngi koy bëgg a wan ginnaaw balaa 2024. parce que fi mu toll nii daanaka dëkk bi dara doxul lépp a metti léegi jeunesse bi ñoom ñoo voté waaw massivement du question lii wala léeg Sonko. ñoom la ñuy jox toujours naan Sonko mooy génn xale yi ak euh, ki mu turee sax euh, Barthélemy mhm. ñooy tàlloo xale yi noonu non ñoom ñoo leen war ginnaaw parce que dëkk bi dafa nekk lépp a cher dara doxul léegi nag dañu bëgg assemblée boo xamante ne bii xeex dootu fa am saagante du fa am pour pañ du jóg dara du jóg ñu nekkal fa askan wi xam nga xool li leen metti ak liñ bëgg ñu defal leen ko loolu la ñuy mhm. waaw ñu ngi lay jëlee.

est-ce que tey nekkul euh, nguur gi moo leen ko yombalul pour ñu mën a jot ci fichier boobu. waaw nguur gi yombu leen ko parce que au début bu naan dañuy arrêté. ñii seen nu mu seen seen kii bi seen list bu njëkk ba ñuy xeex ci loolu ba tax te lu ñoo réfléchir loolu tamit erreur la si ñoom mais war nañu def lii mun na nguur gi nag bu caaxaan jeexee ñun ñëpp ay Sénégal lañu ñoom nguur gi tàggu na yàlla moo joxe nguur moo koy xaj nii population sénégalaise bi ak ni ñu décidé. na waa nguur gi xam ne ah yàlla may may nguur waaye euh, bu ñu bëggee jàmm dox ci dëkk bi bu ñu nañ bàyyi élection ñëpp dem population bi def seen choix mu doon dëkku démocratie démocratie bi moo ñu àtte yëpp takk soo ñëpp yi jëm ci loi. bu léegi parrainage bañ a amati. non waxuma parrain par parrainage. na am mais tamit dafa am parti yu mag yoo xam ne mënoo leen téye ci parrainage bu leen téye rek nga ne waxi politique ku mel ni ay PDS ku mel ni ay PS ku mel ni yeneen parti yi bu leen jàppee. bay pa bu bay boy bi sant ci nek té ko xamu nu tuddati bugan ah, ah pam ah, jibril fall nga xamné yow lolu politique dugg na ci politique dugg na ci PDS wa seju rek man nañ ko ay la fa joggé ëpp na parrainage 5 fois man na def parrainage 5 parti kon ko soko arrêté ci parrainage wala nga arrêté yeneen parti lolu moy yow yaangi bëgg ak politique ci politique far far lolu ak jaay su amee rek mën naa andi lu nekk. ni élection yi bésu ba tay bi commission bi war ko joxé ana tey ban taxaway la ñu war am muy leader yi muy àttekat euh, yi juge bi muy muy sénégalais yi voteurs yi ban. Euh, waaw xam nga man li wax rek. Euh, Sénégal ñun ñëpp ñoko bok muy général bi muy commandant bi muy imam bi ay sénégalais lañu. ku nekk da nga war a xeex pour ñu jëmale Sénégal kanam ci dëkk dëgg yàlla ko. nañu doon patriote bëgg suñu réew gëm yàllaa yonte bi mais bu ñu topp intérêt benn famille boo dee gendarme nga wala ngay policier nga wala gendarme nga bu situation yoo amee ba ngay def presque serment da ngaa waat ni damay défendre sama population kon bu fekkente ni bi marche am na wala dara am ñoo xam ne bokkuñu si armée bi yoxoo su jël ay armes dugg ci biir ñoo ñu gendarme gendarmerie wala eh, kii war nañ leen a taxaw loolu lañ war a xeex d'abord su boobaa nag képp koo xam ne kii nekku si yoon te da bëgg andi ay ci dëkk bi moo xam opposant nga moo xam au pouvoir nga nekk ñu won la ñu la nekkoo si yoon teggi la parce que doomu aadama wërta fara kenn koo xamante ni ki nekku si yoon ndax képp koo faral ëllëg moo lay am indil problème man loolu mooy sama gis-gis ci résultat suba yi nañ wax li dëgg jox askan wi li ñu choisir ki ñu tànn ne moo jiitu ñu jox ko la mu yelloon ñu xaar ñu xaar euh, Macky man daan geex mu dem parce que moo taxaw ne personne mën ta def trois mandats wax ko ay yoon yoon mi mu turee wax ko keneen ak keneen wax ko kon bu ñu xëyee ba dem doomu aadama nag bu ñuy wax valeur am jikkoo tax bu ñu wax baax ak bon ci doomu aadama jikkoo tax yonent bi sax di ko yonent bi di ko yàlla di tagg te dëgg dëgg yaara jikko kon yàlla na yàlla defal jikko xanaa comme élection yi du nag ma ci laaj dinaa ci sawar a wax élection yi moom mooy maanaam ñun ñoo ngi toog suñu kër yi waaye xam nañ lépp mhm. du li xew ci réew mi nag moom boo ko laajee lii bi doog a am un sax moo wax la ko réew mi métti na nit ñi sonn nañ ku ko wax ku ko waxul dañoo bàyyi suñu bopp yàlla suñu borom ndax da ngay ne fii doon sénégalais yor sa bu vote jotee nga dem rang voté koo voteel nag bu jëlee réew mi jël réew mi teg ko ci loxo ay mbokkam di def lu ko neex ay mbokkam di def lu ko neex ñuy noos di nga gis koo xam ne wóor na yàlla balaa moo toog ci bopp réew mi xam nga ni carrément mënu fee sax tag terrasse waaye bu jëlee réew mi ay mbokkam yëpp ci immeuble R plus 5 ay R plus xoomalal la ñuy dëkk waa léegi loolu ñuy sonn kañ lañuy tedd dañuy gën di sonn rek ku yéeg rek toogal sa bopp ak say mbokk lekk ba doyal xaalisu réew mi boo wàccee keneen jëlaat ñu voteel ko mu toog toogal boppam ak ak ak ay mbokkam ñu lekk ba lii léegi Sénégal nii rek la war a dëkkee ba kañ coono bii du fi jóg day gën a avancé day gën a jëm kanam tànk loolu jógu fi ku toog dimbale doomu aadama yi te xam ne ñoo la fal réew mi coono gi day gën a euh, avancé waaye du du fi jóg ndax ku toog rek sa bopp nga toogal jàpp ne yow dangaa war a tibb ci alal réew mi lekk say mbokk lekk nga bàyyi nit ñi ñuy sonn su ko defee nag ngeen bëgg a jël li nga xam ne moom ngeen lekk jëlaat ñi nga xam ne ngeen tuddee baadoole ñu di ko fay yokk ay ceeb yokk duulin yokk lépp ñi nga xam ne ñoo sonn ñooy delluwaat di fay alal bi nga xam ne moom ngeen pasar pasar loolu ba yow ba nga man ah. daanaa voté waaye ren génnuma sama kër di voté parce que dama ne jariñu la may voté damaa xëy dem liggéey jee ko ndax lu ma am maa ko amal mais est-ce que gisoo ne tey comme yi ngi fi yi ngi fi yi yëpp tey peut woon euh, benn benn benn benn benn benn moyen lay doon pour nga mën ko faj euh, d'une partie quoi doo ko mën a faj ndax vote bu jot damay dem voté waaye chaque jour même chose chaque jour même chose dangay dem nag ba ne jaratu sax ngay sànni kenn carte ndax koo sànni rek bu toogee noonu lay doxalee te ana lan nga gis la la mën a def ba situation bi changé mooy yërmande